السلام عليكم ورحمة الله بكتوبة برودكشن أك سحوق تي في نقلين دنيو وباخ دلنا زيار تاينا دنو سقط أي جعو نيو في في نداكارو نيو تي غخ بيو نيو وقت تدم تدم دي بين غخ بنك تبير نداكارو ما نانا نواخنا نفي نواخ للوروس كوكونا دفعم جيخت جيخت غو غو ما أمنك ما تخنون كو غسوسي Euh, ànd ci ak soxna faatu Ndiaye mi nga xamee ne ni tey moo war a jataay bi ak sëriñ Juga mi nga xamee ne ni moom moo mooy jëwriñu liggéey bi ndax mel na ni euh, bayit bi sëriñ Touba bind na isa zakartu zalika al mabita wa zalika al amira wa subuta tarat ila al jihaadi bil armaahi nafsi walakin zabba anni al maahi loolu am na kuréel spécial gu koy taxawu loolu dina feeñ ci biir waxtaan wi bala ñuy sori dañuy bàyyi soxna Fatou ak kàddu gi mu dalal ganam ñu toog teewlu ko auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim sadil lisaani nawri janaani safri amaani wasid baraayi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax baax mbokki taalibe yi ñuy suivre fii ci réew mi ak bitim réew ci seen site internet bi di Touba Production ak sa xew gi TV ñu ngi jiital nuyoo bi ci sëriñ Muntaxa Mbàkke di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér lañ koy ñaanalee xalifa dee Baay Faal mu yàgg fi loolu tewee tey nag dañoo ñëwoon ci bërëb bu sell bi macha allah nekkee sàndaga nekk fii ci bërëb biñ naan ci ci Ciddeen ah, ñu ñëwoon nag seet njaboot soxna Anna Faye macha allah soxna Anna Faye nag ku ko xamul tamit dégg nga ko ci yoonu mburit tey moo taxoon ñu ñëw fii ki nga xam ne ba sëriñ bi ñëwee ñaari guddi Ndakaar mu tombeek jeudi ñaari fan yu mujj ci weeru gàmmu mu metti woon lool ci sëriñ bi ak kooram gu metti googu bi mu ñëwee dañ kaa booleeg gendarme bi ñu naan sëriñ Ibra Binta Gueye sëñ Ibra Binta Gueye moomu moo ko jël boole kaak soxnaam siñ naan soxna Ana fay macha allah soxna Ana fay nag boo leen ko déggee mi ngi gan si àdduna 1883 waaye mi ngi génn àdduna 1962 mu mel ne kon 79 ans la def si kaw suuf waaye borom bi subhaana wa taala dimbali na ko ba booleek ak sëriñ bi Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mu tegu ci yoonu murit bu ko defee damay jox sëñ bi. moom mu gën ñu cee indil ay leeral ñu bàyyi ko mu nuyoo bu ko defee mu wax ñu bërëb bi lan moo taxoon ñu indi fii nii Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ak lan moo taxoon tamit ñu boolekaak kaak ah, gendarme bi ñu naan Ibra Binta Ibra Binta Gueye sëñ Ibra Binta Gueye Mbeng ba mu jël ko boole kaak soxnaam su baax sa su muy soxna Ana Faye bu ko defee sëñ bi dama lay bàyyi nga nuyoo. Ah, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokk yi tedd yi ñu ngi leen di fay ab nuyoo yéen waa Touba production ak yéen waa Ci Xew Ji te di leen sant te di leen jaajëfal ci seen jéego yi ngeen def di gëstu jeexiti nit ñu baax ñi ndax daa bokk ci li nga xamee ne mooy dundal diine gëstu jeexiti nit ñu baax ñi ak seeni jaar-jaar barab bii nga xamee ne fi lañ nekk nag tey jii laa bokk ci barab yi nga xamee ne Serigne Touba Seexina amadul Xadim jaar na fi bi muy dem ci tukkib géej gi ni fi jaare ak li ko fi jaarale nag mooy bi nga xamee ne jugee na ndar fajari alxemes ak si ndakaaru takkusaani suuf di ñaari fan yi mujj ci weeru gàmmu di 19 septembre la agsi ci gaarum ndakaaru ba mu agsee ca gaar ba wàcc ànd ak ñi ko fi indi ñu jiitleeg ñoom ba ci barab boo xamee ne fa lañ ko wàccee mu toog fa fekk timis gi jege muy toog di xaar ngir dog kooram ndax dafa indaale woon koor fa mu toog di xaar dog kooram fa lañ ko fekk woolu ko ne ko ñëwal wuyu ba mu ñëwee ñu jiitleeg moom ba dugal ko ca néeg boobee ñuy wax xam ne ku ñu yéene nit jàmm doo ko fa dugal la mu jëkk a wax mooy delluwaat ci yàlla boroomam ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàng fa suuratul baqarati ak suuratu ali imrana fanaane fa julli ci yonent bi ay xew-xew yu bari xew na fa foofee nag ba fa fanaanee ba fajar ku ñuy wax sëriñ ibra bint gay mbeng dëkkoon fii ci péncum cëddeem ca ceddeem nag menn pénc la ci fukki pénc ak ñaar yi nga xamee ne mooy pénc lébu yi mooy fii ñuy wax sànd gi tey fi ñuy wax lalu urus tey jii mooy pencum cëddeem sëñ Ibra Binta Ngay Mbong moom yi nag fekk bi sëriñ bi agsee ca alxames ja waxtaan nag bokki légoom léboom ba ñoom ñépp ñu juboo ci dem ci tubaab bi laaj ko sëriñ bi mu jox leen ko ñu indi ko téye ko ci seen kër ba keroog tubaab bi di ko jëlaat soxla ba kérok tubaab bi di ko yóbbu ñu doog ko jox ba nga xamee ne délégué nañ ko nag moom sëñ Ibra bin Kay Mbeng mu dem waxtaan ak tubaab yi ngir ñu jox leen sëriñ bi ñu andi ko fii yor ko fi ba kérok muy dem ba mu ñëwee laaj leen ko waxtaan ak ñoom jaar ko ca yoon wam ko war a jaar ngir ñu man leen a jox sëriñ bi ñoom lébu yi tubaab yi dañ leen a gàntaloon ca njëlbeen ga waaye bañ leen gàntalee ñu fàtte leen njëkk ak teraanga joo xamee ne dox na seen diggante te mooy bi ñuy dem di xeexi ak portugais yi defaral noon defaraloon nañ leen téeméeri puji ñax yoo xamee ne moom lañ defoon ab camp ci ndimbal lool imaamullahi yoof ndax day nijaay ibra binte gay mbeng ca imaamullahi moomee lañ jaar ngir mu yabal ay taalibeem ci turu lébu yi ñu ñëw defal tubaab yi téeméeri puji ñax yoo xam ne ab camp lañ ko defoon biñ leen fàttalee teraanga ak njëkk jooj yi ñu leen defal nag ñu xam ne mënuñu leen a bañ a jox sëriñ bi ñu laaj leen léegi nag ana bu dawee nu ngeen di def ñu ne bu dawee ngeen jàpp tubaab yi daal di leen di jox sëriñ bi ci turu sëñ Ibra Binta Gueye Mbeng moom yi nga xamee ne moom lañu yabaloon moom nag ay bokkam sax wax nañ ne du woon ab gendarme waaye nag kilifa la woon ci kilifa yi dëkk bi euh, garaat ba mu amoon nasaraan yee ko ko joxoon moo tax sëñ Moussa moom mën na ko wooye ab sandarma am na sëtam bu ñuy wax Sangone Jaañ nee na ma sandarma googu lu walaabal la ndax mag ñi képp ku daan liggéey nasaraan bi rek daan nañ la woowe tur woow yi ba nga xamee ne jox lañ leen ko nag ci kër gi ñu nekk tey jii fi lañ ko andi woon sëñ Ibrahima Binte Gueye Mbeng moom it bi mu agsee dafa jarabu serigne bi fekk ñom lébu yi waxtaan nañ ci ba deggo ci dañuy def népp ndax it ñu yàlla dénkoon ab xam-xam lañu bi nga xamé né andi nako ko ci kër gi tok ak mom, di waxtaan ak mom fiñ tok di waxtaan mu daal di juk bayyi fu serigne bi genn bi mi genn nak bayyi na ci serigne bi ab dokk bo xamé né mom moko yoron dokk ba nak yat la wo xamné ne yattu yi dafa am lu ci laxasu moy mbiri xam-xam ci biir ndax ñoom netti nañ ne yat woowu foo ko teg juróom-ñaari ponkal mënuñu koo yëkkati waaye sëriñ bi jël ko ci baaraamu sànq lañ ak bi ci topp ne ko Ibrahima mu geesu ko mu ne ko bant bii mel na ne yaa ko yoroon mu daal di jël yat wi ndax lool nag ab natt la woon bu mu doon def ba xam kii ndax nituk neen la wala nit ku ànd ak la neen la ba nga xamee ne gis na loola nag la xam ne kii bokkut teg nit ñii ndax dokk bi juróom-ñaari nit a koy yëkkati menn moom bu ko mënee jël ci ñaari baaraamam ne kuy jël bantub almet kon bokkut ak nit ñi ca la waxtaane nag ak soxnaam soxna Ana Faye donte nag ñenn ñi sax wax nañ ne di woon ab soxnaam jigéenam la woon waaye lu ci mën a xew ci soxna Ana Faye la waxtaanal ne ko am nañ gan gu tedd kon nag nañ def lu ñu man ba nga xamee ne loola am na nag mu nekk fii ci kër gi ah, am na mag moo xamee ne ñun suñu way jur yi ñu fekk si ci barab bi nettali nañu ne moo doon gonek soxna Ana Faye ca yooyee jamono ñu ko daan wax maam Ayta Mbeng maam Ayta Mbeng moom mii nag ñun fekkuñ ko ci kër gi waaye suñuy waajur fekkente ne moom ci kër gi dund nañ fi lu yàgg yàgg yàgg. Euh, kër gi nag nga xamee ne mooy kër sañ Ido Binte Mbeng ak soxna Ana Faye maa ngi tolloon ci di wax ne sëñ soxna Ana Faye moom yi nekkoon na fee goneem gu ñuy wax maam Ayta Mbeng maam ay Mbeng mom ni nak suñuy wayjur bi ñuy ñew ci barab bi mom lañ fi fekk ak ku ñuy wax Mapuut mbenga waye suñuy wayjur ñun fekkante wuñ fi ak serigne ibrahim Binta Gaye Mbeng ak soxna Ana fay ndax ñoña ci jamono serigne Touba lañ fa nekkon ñom nak biñ fi ñew jóge Touba ci kër gi euh, Mapuut Mbeng ak sox maam Ayta Mbeng lañ fi fekk maam Ayta moom yi daanaka lu ëpp ci nettali yi moo leen ko doon nettali ak góor gi ma puut mbeng euh, maam ayta moom mi nettali na ne moom sampal na sëriñ tubaa maqaris fii ci kër gi nett ci ndigalal soxna Ana Fay nettali nettali na it ne fóot na fi yërey sëñ tubaa ci ndigalal soxna Ana Fay nettali ne togg na fi ab laax jox ko soxna Ana Fay mu jox ko sëñ tubaa ñett yooyu yëpp nettali na ne def na ko fi moom it tamit nag ku yàlla barkeeloon ak dundam la ndax dund na ba màggat dara soppikuut ci jëmmam dem na ba boo ko laajee ñaata at la nga am mu ne xawma ñaata at laa am waaye xam naa ne maam ak saxaar waaye ba bi muy faatu bel dan lañ ko doon wooye ndax jëmm ji ni ko yàlla binde dara soppikuwu ci ak lu muy màggat màggat kon loola firnde la juy wane ne liggéeyal na sëñ Tuubaa kon nag noonu yi la fi sëriñ bi nekkee Euh, sëñ Moussa ko taarixal na ko ba mu jógee ca néeg ba ba ñëw fii taarix ba nag daa wax ne tubaab ba woo ko boole kook sàndarma bu tudd Ibrahima Binta Gueye ngir wor ma mu boole kook soxnaam su tudd Aana Fay mu di ko toggal yal na yàlla xëy ko fay waaye nag ci boo jàngee ni sëñ Moussa waxe ak ni taarix bi demee dangay gis ne nekk gi yàggut ndax daal borom ndaram ndakaaru daal koy woolu bu tudd kàpp teen sujja nan ko moolu ba nga xamee ne woolu nañ ko nag ca la daadi jóge dem fële ca poor ba fa la yendu ca bisub ajjuma ba ndax fii subak ajjuma la fi ñëw ne fi jóge fi dem yendu ji ca poor ba ngoonu ajjuma fanaan ca poor ba guddi gaawu xëy fajari gaawu dem ci géej gi kon daal barab bii noonu la melawoo penc mi nga xamee ne ci lañ nekkit di pencum ca déem bokk ci fukki penc ak ñaar yu penc lébu yi xam naa su fekkee laaj bi mat na daal noonu la demee su fekkee am na lu ci leeru tinit buñ ko leerloo ñu leeralaat ko jërëjëf. baax na sëñ bi ñu ngi lay jëfal bu baax a baax leeral nga ko macha allah bi ñuy ñëw dañoo dugg si sa gi gis si benn garab garab boobu tamit mën nga ñëw leeralal ba xam sëñ bi agsi woon na fi wala gi waaw waaw garab gii moom suñuy jur ñoo ko fi jëmbatoon sëriñ bi fekk ko fi ku ñu wax sëriñ xaadimloo loo doomi sëñ binta ndaam moo moom nettali na ma ne ñoom ñoo fi jëmbat garab gi moom nag jarbaat la woon loo ci sama waajur ñoom ñoo fi jëmbat garab gi yàgg na nag année soixante ya la woon jàpp soixante-dix waaye garab gi moom sëñ bi bàyyiwu ko fi woon beneen laaj bi ma lay laaj soxna Anna fay yàlla jotoon na kaa dénk ay njaboot waaw wala déet. waaw loolu nag euh, xamuñu njabootam su maam soxna na Faye. Euh, net am na nag ñu wax ne am nañ ko am na ko waaye xamuñu ko. sëñ Ibra Binta Gueye Mbeng moom yàlla jox na ko njaboot ba léegi ay sëtam a ngi fi soxna Ana fay moom mii nag moom xam naa li ñu xam ci moom daal luñ mën a nettali mooy maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina ak sëñ Mandoumbe Mbàkke dëkkoon nañ ci kër gi garab googu yi ngay wax néeg bi mu làngal maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina dëkkoon na fi gannaaw bi sëriñ bi demee ci géej gi néeg ba ko féete na lay sëñ Mandoumbe Mbàkke dëkkoon na fi gannaaw bi sëriñ bi demee ci géej gi barkeeloo ko jaar gi fi serigne bi jaaron mam Ana fay momi nak euh bokki lebom yi netti nañu ne eh, dan sonal lol mam se ibrahim Fa babul muridine ci bëgg mai may soxna waye bu ko ko masana wax mam Cheikh dako dan daan diko wax ne ko man taluma lolou ndax man dañoo japp sama serigne yobbu ko ci geej gi nga dima wax waxi soxna man taluma lolou sama serigne badam latal waye nak mam Ana fay donku ku attan koo xam ne du bàyyi bi yàlla dogalee sëriñ bi ñibbisi nag ba delluwaat ca dëkk ba loolee mu doon sabablu yàlla mujj na ko dogal ndax jël na ko tudd maam jas mbeng may ko maam Cheikh Ibrahima Fall Babul diina maam jas mbeng nag kër maam Cheikh Ibrahima Fall amu fak leer waaye ba mu fay dem dafa àndoon ak rakkam ju tudd Njaay Mbeng ndax ni ñuy def rek olof yi bu nit di dem kër ñu wutal ko am topp ci ay rakkam mu ànd ak moom ne di ko jàppale rakkam joojee ñu mu fa àndaloon nag ñu koy wax njaaye mbeng moom gannaaw maam Cheikh ibrahim Fall ak maam Jës Mbeng sëñ Modou Moustapha Fall lañ ko jox ngir yittili ngir mottili kóllëre gi nga xamee ne soxna Ana Faye amoon na ko ak maam Cheikh Ibrahima Fall ak loolu yi nga xam ne yéene woon na ko ci jël njabootam jox maam Cheikh Ibrahima Fall maam Ndiaye Mbeng moom mii nag la nga xamee ne nasuroon nañ ko ca maam Jas te mujjut woon antu mujj na antu ca moom ndax moo sëñ Modou Moustapha Fall am nañ ko tudd sëñ Cheikh Ndiaye Fall noppul na barki démb rek sëñ Cheikh Ndiaye Mbeng lañ ko doon wooye ba nëgg ay rakkam ña nga ca péncum caali ca Mbàkke Bawol boo fa demee fekk leen fa ñoom ñooñi seeni maam fii lañ bawoo sëñ Cheikh Ndiaye Mbeng momi nak nag muy noppul ku fi bari won ay tank la ku fi da ñew lu bare bare bare bare la bi nga xamé ne dem na ba jamono yi Cheikh jëm faal nak ci le gëna tabje ba wañ ay tankam fi kon dal mam ana fay lolu la netti ci mom ma sha allah kaddu amna solo lolu kon bu ko defé yaakaar naa fii la yaakaar naa tey ku xamul woon soxna Ana Faye tey war nga kaa xam ndax sëñ bi indil na ci ay leeral yu baax macha allah ah, bu ko defee fii rek la ñu yem ak yéen lépp lu ci jug ngeen xam ne borom bi subhanahu wa taala moo ñu ko waaye lépp tamit loo xam ne dëgg na ci rek ngeen xam ne suñu mat de la jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf mbokk yi jërëjëf soxna Fatou ci eh, question yu am solo yi nga xamee ne ni ak gëstu boobu nga xam ne ni gëstu na leen ko ci lu aju ci dem. Eh, ak dikuk sëriñ bi fii. ci ndakaaru mu mel ni tey jii ñu ngi toog ak euh, sëriñ Mbaye sëriñ Mbaye Diouf xasida euh, bokk ci kuréelu ñaari guddi ndakaaru yi euh, ñu mu mel ni tey ji waxtaan wi daf liñ ci liñ ci mën a jukkee mooy gis na ne bés bi dañ ko daan def ci vingt 19 20 septembre ren ji ñu mu mel ni soppiku am na ci ñu def ko ci première de décembre lu waral soppiku googu waaye tamit mu mel ni am na leneen lu beesaat ci yëf yi muy lu mel ni e, ki fi togg Cheikhul Khadim boole na leen ak jëwriñ joo xamee ne ni ci moom la bokk mu e, bokk mu ànd ak ñoom liggéey bi loolu it yëpp sëriñ Mbaye Diouf mi dinañu ko leeral kon mbokk yi xam naa duñ def lu dul ànd ak moom ci liggéey boobu ñu e, jox ko kàddu gi. ne samihna wa ataana rek lay def ndax ndem yéene sëriñ bi mooy ñu màggale ko masalik kon ñun dañuy daal dem masalik toog di ko xaar ba nga xamee ne ca déwén sa tamit ba du sab ca déwén sa ba mu dellusee mu jàpp ko tamit woo la waat sëñ bàkki yu fay wax ko ko nga nga xamee ne wax na ko ko muy euh, dama koy ubbit ci bisum ñaari guddi Ndakaaru yooyu muy le 19 ak le 20 yàlla sunu borom def mu tombeek màggalug daaru xudóos mu wax ne njëm moo war a taxawu moom Cheikh Mouhamadul Muntaka màggalug daaru xudóos gi waaye taxawoo waala it li nga xam ne mooy ñaari guddi Ndakaar muy ubbiteeg jumaay ji kon dafa bëgg ñu may ko ayub bis mu jàll ca moo tax mu ñu def ko ca la 27 ba booba ba nëgëni nag ca koy màggale foofu ci Masaalikul Jinaan kon loolu daal sëñ Cheikh mooy sabab bi tax ñu yóbbu ko foofu ci Masaalik di ko fa màggale léegi jërëjëf bokk yi kon xam naa ne euh, ci tënk Serigne Khadim Gueye mooy jàng mooy fanaane bés bi mooy fanaane guddi gi ci conférencier bi nag euh, moom mooy Serigne Issa Gueye imam ñëpp xam ko te mu euh, xarañ lool ci ci te ñu gën koo xam ci wirdu maxuus te mu te mu mën cee génne ay ay ay ay secret yu bare bare bare di koo xamee ne tamit wax dëgg yàlla ku ñu ku ñu yàgg xam la foofu ci daaray kaamil mu fa daan taxaw ay liggéey yu am solo Euh, bi ci des it mooy xam ngeen ne bay Fall yi kenn demul ñu des ndax it euh, am njàngat dafa nekk ci suñ digg bay Fall yi ak sëriñ bi ndax mu mel ne fii ci ci ca sax ñu ngi ci ñu ngi am information ci ne Cheikh Ibra fekk na fi sëñ sëñ bu mag bi euh, loolu nag dafay wane ne rek maanaam sëriñ bi dafa taqoo woon ak Cheikh Ibra ci zahir ak ci baatin kon daal xam naa ne loolu mooy programme bi ci njiital sëriñ Baye Ndiouga Dieng nga xamee ne ni moom it euh, di koo xamee ne ni moom dong euh, li li li dafa bokk ci ñi nga xamee ne ni ñoo taxawal euh, Touba ndax ay way wayjuram taxaw nañ taxaw bu am solo ba Touba mel nii mu mel loolu xam naa dañ ci dellu siwaat beneen yoon ci lu gën a yaatu xam naa di jox kàddu gu mujj gi su ko defee luñ ci war a leeral mu yaatal ko waaw ah, jërëjëf euh, kon xam naa ni ma ko waxee rek damay delluwaat rek di yeesalaat ab woote ci mbokki taalibe yi ak jullit yi yëpp fu jullit mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew ñoo ngi lay woo ci màggalu ñaari guddi ndakaaru yi rawatina nag ñi nga xam ne dañoo dëkkee sawu jant muy ndakaaru waaye di ci woo sunu bokk yi nga xam ne ñoo féete fee ci bawal ci njiital sëriñ Muudu Mbàkke Ndiir ak mbooleem ña nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi foofu ci bawal waaye noonu sëriñ Cheikh Dieng ak ñi mu àndal sëriñ Ibrahima Thiam sëriñ Papa Diallo ak mbooleem ñi nga xam ne ba ci Baye Diagne ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal liggéey bi foofu ci Touba ñoom ñëpp tamit ñu ngi leen di woo ci bés bi waaye noonu la ñu woowee tamit sëriñ ma buri aaj ma nga xam ne moo féete foofu ci Mali te nekkoon fa ak bay Diagne moom it ñu ngi leen di woo ci màggalu ñaari guddi ndakaar yi di woo tamit sunu bokki lébu yi nga xam ne muy fukki penc yi ak ñaar ñoom ñëpp tamit ñu ngi leen di woo ci màggalu ñaari guddi ndakaar yi waaye noonu la ñu ña nga xam ne ñoom la anu àndal liggéey bi ñëpp ñoom ñëpp tamit ñu ngi leen di woo ci màggalu ñaari guddi ndakaar yi waaye Serigne Fallou Fall ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo di woo bokki jullit yëpp bokki taaliba yëpp bokki Baye Fall yi bokki murid yi ñoom ñëpp rawatina nag suñu bokki Baye Fall yi nga xam ne ñoom la ñu ñoom la ñu dara jaale maam Cheikh Ibrahima Fall lan dara jaale bis bu njëkk bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ci bisi ci màggal gi waaye noonu la ñu woowee tamit ñi nga xam ne mooy sunu bokki daayira maam jaara yi fu nu mën a nekk rek ci àddina ñoom ñëpp tamit ñu ngi leen di woo ci màggalu ñaari guddi ndakaar yi maanaam màggalu ñaari guddi ndakaar daal ku koy di képp koo xam ne yaa ngi dégg sunu kàddu na nga am yëg-yëg dina bis ni ki tey ñoo yow ñoo ci bokk benn yemuwaay ñoo war a àndandoo ñun taalibé Sëñ Tuubaa yëpp di dundal màggalu ñaari guddi ndakaar di taxawu màggalu ñaari guddi ndakaar yi di ko nose jërë ngeen jëf waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf mbokk yi kon mu doonoon seen mbokkum taalibe Cheikh Mbacke Samb àndoon ak euh, euh, Serigne euh, Serigne Mbaye Diouf xasida waaye nag équipe technique bi nga xamee ne nii ñoom ñoo ñuy ñoom ñoo ñu doon taxaw ci ci liggéey. sëñ Mahmadan mu sëñ Moussa sëñ Mahmadan sëñ Mahmadan mii nag ñu ngi ko duppee sëñ Mahmadan mu sëñ Moustapha sëñ Moustapha Massamba waaw waaw. Euh, muy moo nekkoon ci wàllu caméra bi euh, soxna Fatou Fatoumata Ndiaye moom nekkoon nag ci première partie bi doon nekkoon ci wàllu gëstu bi xam naa di ànd ak yéen ci liggéey bi fii ba ba keroog ñuy àgg ca cérémonie ba ca tëjte la dara du leen ump ci tubaab Production ak Sekhawgui TV asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu.